le 29 mai 2022 ay parti un ay mouvement politique yu boko gis-gis ñoo jok le directeur de l'emploi Modou Fall créé ben coalition bu ñu la coalition républicaine sam suñu comme ni ngeen dans la coalition Benno Boko Yakar, am ce qu'on appelle des sous-coalitions coalition Bobu, li ko a dañ gis ne président de la république lu mu def ci foo tourné di nga gis son bilan ñu ne làmba daj xool gis ñu ne kon réew moomu dañ ko war a ñu ne coalition bi la particularité par rapport à coalition yi mooy dafa nekk coalition bi dafa jóg pour défendre les institutions du pays en même temps participer à la vulgarisation des réalisations du président de la République parce que dañ gis opposition bi ñi fi nekk ñoo xamante ne bu di discréditer les institutions du pays ñu jóg ne gendarmerie baaxul ñu jóg la magistrature baaxul institution yi nga xam ne ñoo ñu jàngal ba ñu toll lu ñu toll ba ñu doon lu doon y compris ñoom ki leen di incarné tey l'opposition tey ñu bëgg discréditer tous ces institutions na ne réew mi dara baaxu fi moo tax ñu ne nag du ñu seetaan opposant yoo xam ne seen intérêt bopp kese bugg a jël réew mi yóbbu ko ci guuta dugali ci loo xamante suba du ñu xam réew mi fu ñuy yóbbu voire même à une guerre civile mën nañu ko yóbbu te ñu gis li xew dans la sous-région tey soo demee Burkina nga dem Mali nit ñi nelawatuñu kon loolu yëpp mën nañu gis loolu ci Sénégal ku xëy di nga dem liggéey réew bi jàmm am fi ñuy seetaan ay opposants ay ñoo xamante ne waxuma ay populis wala ay démagogues bugg a ñëw ne li fi nekkoon dara baaxu fi. bëgg ñu indi idée boo xamante suba mën nañu yóbbu ci guuta moo tax la jeunesse de la coalition républicaine ñu ñu jóg taxaw ne loolu duñ ko nangu te dinañ ci taxaw xeex ñu ne président Ousmane Sonko mënul def lu mu def ba pare koo xam ne beneen nit nga ne yow doo dem wuyu ji ñu ne na dina dem wuy ji far la force parce que tey le Sénégal c'est une république te ñu taamu di wax ne la loi est générale et impersonnelle mooy kenn ku ne ñépp la fi nekkal ñaata citoyen lambda ñoo nekk tey rëbës ak feneen neewuñu yaa def wala defoo mais ku yoon woo da nga war a dem wuy ji comme say morom moo tax ñu ne ci loolu du ñu nangu aussi ay lobby yoo xamante ne ñoo fi nekk parce que tey ñëpp gis nañu li xew senegal ak pétrole bi ay lobby yu bëri yu nekk ci suuf di taxaw di ngeen bàyyi opposant ñeneen di leen financé pour bugg a taal dëkk bi loolu moo tax ñu ne dinañu taxaw tem taxaw di xaar loolu pour bañ loolu di wax ne aussi. nous profitons de voir le président de la république la coalition républicaine comme nous le ko nous avons aussi la coalition Benno Bokk composée de beaucoup de sous-coalitions Maki 2012 Tanor 2012 Diso Akfada, Fada j'en passe keneen ak keneen di wax les responsables ñu avons jox ndoomu tànk ñu leen di wax ñu défendre le bilan du président de la république parce que wax avons dit ñu le président de la république nous avons taxaw ne le lañ fa li fi président def nous war nañu taxaw fëgg suñu fier ne fii mais li ñu président def la plupart des responsables ñoo xamante ne dañuy taxaw lu di xoqatal ñu jox leen lu ne ñamaw ñu taxaw président def ci réew mi invité ñu ñu descendre sur le terrain gindi Sénégal ci opposition bi manipulation bi ñu def wax Sénégal président de la République xanaa loolu nag responsable bu ne amoo looy tiit ci loolu war nga mën a am sañsañ taxaw ne réew mi président lii ak lii la fi def moo gën ñu bàyyi les populistes ñu bëgg a taxaw def table rase ne réew mi dara baaxul ba suba ñu nar ñu yóbbu ci guutu ñu wax ne président la république ci wàllu droit kenn waxatu ko ci wàllu droit ñépp nangu nañ ne mën na am deuxième quinquennat ñu ne lu mu def ci réew mi te ak réew mi fu mu toll ak le problème di pétrole bi yegsi ak enjeu sécuritaire yi fi ne ñoo tax ñu ne président la république ñun la jeunesse du pays ñu ngi lay ñaan nga demande le deuxième quinquennat par nañ pour gunge la ci parce que wax dëgg yàlla li ne ci réew mi dal na xel te du ñu nangu réew mi nag ñu duggal ko ci guuta ñu dugg ci ay aventure yoo xam ne dara waru ci moo tax ñu ne président de la république bu ko laajee dinañ ko ci gunge bu joxoñee keneen aussi dinañ ko ci gunge fu ñuy jeexale di wax ne monsieur Ousmane Sonko ci wàllu yoon c'est le moment bu fekkente ne jàpp nga ne defoo dara amoo nga dem wuyu ji comme ça su ko defee yoon mën a dina wax dëgg bu fekkente dara dinañ la ne dara bu fekkee def nga dara dinañ la def nga dara bu ko defee ñu gindi sa bopp gindi Sénégalais yi parce que ñëpp loolu la ñuy xaar gindi Afrique gindi le monde entier foofu daal la ñu di jeexal di wax ne complot manu ci am parce que complot amu ci du kenn si ñun si heure couvre-feu. ki la wax ne demal salon de beauté kon complot mënu fa am parce que ba mu fay dem tàgguwoo kenn chère presse loolu la amoon pour waxtaan ak yéen di wax ne nous sommes à votre disposition pour